alors malay lay laaj ban jàngat nga am ci biir combat boobu nga xamante ni Bombardier demoon na koo am fële nga xamante ni moom mooy Europe. jërëjëf Mariama. Mhm. Euh, maa ngi waxaat ci loo xam ne lii. Mhm. ci mbir moo xam ne mii fii biir Sénégal. Mhm. neexul la waxe loo fi wax ñu am nuñ ko jële man ci sumay biir émission. toujours dama mos a jooytu lu mel nii. wolof dafa ne. artu moo gën atte artu moo gën atte prévenir vaut mieux que mm-hmm. nañu wax ci teel MMA mm-hmm. euh, déjà mm-hmm. mooy lan na ko sénégalais yëpp xam mooy mix martial arts arts martiaux yu bare yu ñu mixé boole leen judo ngi ci biir taekwondo ngi ci biir Euh, euh, jujutsu brésilien mu ngi ci biir muay thai maanaam la su thaïlandaise muy combat yooyu ngay gis coup de genou coup de coude mhm. loolu yëpp mu ngi ci biir mhm. Mariama ban critère la nit di nekk mbër Sénégal mhm. wax ma dara neel dara fii boo amee doole sax ñu demal bëri dëgg la wala déet amul lenn looy jàng pour nekk mbër te bëri dañ ko war a jàng papa. non non non mais bëri ñun moom ñu ko ñun kenn rek kese man balay suma xol di jeex ñu naan sport de chez nous nekkul suñu moomel. depuis la nuit des temps depuis des temps immémoriaux depuis la Grèce antique bëri am na fu nekk. Mhm. asiatique am nañu bëri. Euh, Sénégal gi si wàllu boppam bul sore ban waaso moo fi mën moo moo moo na moo mën a wax ne maa moom bëri bi ban waaso mooy Modou Béré boo demee ci tukulóor yi ñu ngi bëre ñu ngi wax ci pré mhm. nga dem ci séeréer yi ñu ngi wax njom nga dem ci olof yi ñuy wax bëre ainsi de suite ainsi de suite mhm. mais kenn amul pour wax ne la bëre man maa ko moom mhm. man maa ko sàkk fii Sénégal Sénégal aussi amul droit ne bëre moom moo ko moom moom moo ko sàkk ci àdduna pour l'histoire lan moo indi bëree dóor bëree dóor lan moo ko indi Sénégal am na tubaab bu fi nekkoon boo xam ne bii moo yoroon film cinéma yu ñuy doon wax Comasiko moo ko moomoon cinéma dañ daan dem cinéma léegi xam naa ni yéen xamatu leen luy cinéma mm-hmm. dañ daan dem cinéma ki ko moomoon moo ne pour que lii pour que ça mu gën a attractif nañ ci boole coup de poing lamb yi ñu njëkk a organisé bëri yi ñu njëkk a ñu ngi ko defee euh, foofu euh, euh, xaw ma ndax publicité lay doon wax centre commercial El Malick mhm. ñu doon ko wax cinéma Alhambra d'accord foofu la ko premier combat yi bëri dóor foofu la commencé ñu def bëri bi ñu xam boole ko ak dóor dama lay wax toutes les techniques yi nga gis ci lamb existent au judo. d'accord yi ngay gis ci judo mu ngi ci bëri. Mm-hmm. bëri laa wax de waxuma bëri bëri lamb yi. Mm-hmm. donc kenn amul droit ne bëri moom moo ko moom. Mm-hmm. ñiy def MMA mix martial arts ñu dellu si ci dañu def arts yu bëri yu bare def ko pendant quinze ans vingt ans. jàng. amuñu beneen métier ci àdduna lu dul xeex. Mhm. kon papa su ma la déggee dafa mel ni da nga ne euh, bombardier li mu dem defi élément bi lu normal la. je dis pas que c'est normal jamais je n'ai dit que c'est normal. la ma wax mooy ku ko ci bugg a def. Mhm. consacré temps bu bu doy pour jàng arts martiaux. donc Balla Gaye am na possibilité dem def ko moom itam comme bombardier mais pour lan pour lan mais possibilité bi. il faut que parce que fi mu nekk nii bii bëri fi mu nekk nii buñ ci defee quinze ans d' mhm. ci arts yi seen carrière làmb jeex dëgg la bu fekkoon ne day suma xalaat mhm. am na lu ñu mën a jàpp yemun ci làmb ji di ma gën mhm. toog fii buñ naan kañ la koor bi ñibbisi c'est grave dëgg la kon Bombardier yow euh, tey boo bu doon demaat di dellu di def li nga xam euh, bi mu jógee da nga koy conseiller mu dem jàngi euh, judoka bi nga xamante ni moom nga. moom la mhm. arts martiaux en général. Mhm. parce que ci la bokk. Mhm. boo lu a déséquilibré xam ne bii ñu ngi seetaan làmb. ñu ngi fàttaliku combat bombardier ak Tapha Tine. Mhm. Tapha Tine gaañ na ko gaañ bi metti bombardier d'accord am na doole. Mhm. mais doole rek du xeex te la ne xeex la dañ lay jël Mariama ci cage dugal la ci. Mhm. jàpp sa ko jàpp sa adversaire ñëpp génn ñu ñu ñu ñu kàddu na euh, cage bi ak bi des fa. il faut saluer le réflexe de l'arbitre. Parce que rapidement. Oui, il a, il a, il a réagi. Il a réagi. Rapidement. arrêtez combat bi. Effectivement. Euh, euh, yëkkati boppam daal di au médecin yi. Mhm. heureusement. mais su xawoon am tuuti retard lu ko baax bu ko arbitre bi arrêté wul kenn amul droit arrêté ko. Mhm. bu fa jëlaatoon ñaari coupe wala ñetti coupe lan mooy arrivé. Mhm. sànq ñëw nga ci tuuti. xaw nga koo laal lan moo tax Bombardier euh, jël coup de point boobu ban erreur la Bombardier def. sànq ñoo nga ci tuuti. ko sànq def na fi combat ak mhm. mhm. d'abord il un problème de garde. Mhm. parce que la garde garde Bombardier c'était elle était trop basse. garde bi ci kaw la war nekk loolu yëpp am des techniques d'arts martiaux moo koy mën a may nit ki. d'accord am une bonne protection boo xam ne bi encore Dieu soit loué lay wax. Mm-hmm. Mariama les les combattants de MMA là lu ma lay wax fii tey c'est des tueurs. d'accord c'est des tueurs lii mooy seen métier. Bombardier ëppul waa ji doole bu fekkee ne doole rek la ñuy wax. am na ay yu nekk ci net bi faut voir le gars là mhm. d'accord te amul beneen métier bu dul dem xeexi dem sax événement tëddul nelaw am docteur yu ko mu am alimentation boo xam ne bi alimentation adéquate. Mhm. boo xam ne bi en tant que compétiteur loolu lay def. Mhm. donc foofu laay ñëw euh, euh, ki nga xamante ni mooy Marius. Euh, mi nga xamante ni moom moo doon euh, bëri euh, wala bokk def combattre ak ki nga xam moom mooy bombardier lan nga ñu mën a wax si moom parce que il paraît que dafay pousse ay avion ak loolu yëpp ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy wax et tout à l'heure tu as dit que ni affaire donc comme ça tue est-ce que il fallait vraiment que bombardier dem ci ba ba coup bi ce qui s'est passé waaw wax naa la fii sànq ne la. moom nga wax ci moom tuuti aussi. ah moom le gars le Marius. Euh, bu fekkee ne tey fi mu nekk nii war a dem bëri. bëri amul benn critère pour nekk mbër. Mhm. amal doole dem yëkkati bañ daw ci booru géej gi dem bëri ji. Mhm. c'est tout c'est tout. boo def ay dara kii à gauche mais boo seetloo combat bi ñi nga xam ne bii am nañu notion laa wax. Mhm. Mariama bu ma li may wax nag ci internet lay wax dana ci am ñu réagir. dëgg la man li may wax ah, je le dis en âme et conscience. du du itam euh, bu ko glorifier mm-hmm. mais c'est parce que wax dëgg yàlla je le dis à qui veut l'entendre les arts c'est chez moi. je sais ce que c'est. Mm-hmm. quand j'en parle je suis dans mon jardin. kii quiconque boo xam ne bii li déglu nga li may wax bu ko contredire parce que face à face qu'on discute et je suis parce que ku ci nekk ak la nga xam ne bii loolu nga xam loolu la lay yàlla séddee. Mm-hmm. donc am na je suis connu à travers ce pays là à travers partout que di japonais ñëw boo fii di def si émission ci man. c'est grâce à ça xam nañ ne may def loolu laa xam. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, man tey Bombardier su ma bokkoon ak moom ndey ak bàyyi. Mhm. dootul defati combat bi. d'accord je parce que. pour kon pour pour lan. bokkul. d'accord bokkul lii bëri na. Mhm. boo toogee euh, Reug Reug. Mhm. Euh, dóor nañ ko fi mu kawote. mu naan ak bi dafa sifflé benn ak ci làmb Sénégal la am. dëgg bu sifflé combat bi jeexul def nga trois appui def nga quatre appui non. ñenn Euh, su at bi gaawulee c'est jusqu'à ce que mort s'ensuive. d'accord. mën nañ la ba nga dee bu at bi amul réflexe arrêter le combat. mu mhm. ngi mhm. lu ko jaral. d'accord. autre chose lu ma xaw a jaaxal mooy su fekkee ne problème mu xaalis la mais mbër yi li ñu gagné fii ay cent millions ci benn combat a cinquante millions ils ne l'ont pas en MMA amuñu ko ma ko boobu information. ils ont moins. amuñu ko. D'accord. Ils n'ont pas ci benn combat ils n'ont pas plus de cinquante ku la ko ci wax waxul lu am. peut-être la leen ci dugal mooy. est-ce nekkul niveau international bi rek. tour bi ñaari raison laa gis benn bi mooy euh, li ñuy toog lu yàgg duñ bëre. Mhm. ñu ne dañ dafa rek foog ay cinquante millions quarante millions. ou bien dem nañu fële. Euh, danañu am lu ñuy wax ci seen naataango yi fii mhm. man nekk def naa dugg naa ci cas ñu tëj ko mooy mhm. définitivement peut am ñi fi des am lu ñu leen ragalee d'accord pour pour tëj émission bi dama la bëggoon laaj juste euh, beneen question bu mujj euh, nga tàggoowaale en même temps nga wax ñu Bombardier ku mu recevoir lan moo nekkoon lan moo tax mu kaawoo en fait ñu ñëwaat ci bokk <laughs> très question très question xam nga Mariama mhm. euh, il y a 88 points vitaux mm-hmm. mm-hmm. ah, sur un être humain bëri na. d' accord. bëri na voilà. sur un être humain. Mm -hmm. tu peux décompter 88 points vitaux. oui. Euh, Bombardier au départ waa daf ko waa ji daf ko excité en donnant un low kick c'est-à-dire le coup de pied bas boo xam ne bii ça vient au niveau. du tibia ou bien au niveau du ministre. C'est-à-dire les petits disques transparents là qu'il y a. Oui. Euh, Entre là, les genoux là. Oui. Il suffit simplement d'un coup descendant pour que vous tranché mal. Ça peut tétaniser la jambe. Wow. Un. Deux, Bombardier, il est venu avec des crochets larges. Mm-hmm. boo seetloo at yi daf may rappeler le combat Sonny Liston Mouhammad Ali sur deux reculs la ko Mohamed Ndour euh, euh, direct bu c'est la même chose Sonny Liston Mouhammad Ali. bi Bombardier réagir dafa dóor un coup de un crochet large mooy seen Dakar Kédougou yooyu ñuy def. Mhm. waa ji dugal direct gauche. mu laaw bële waa ji esquive retrait du buste mu dellu si waat encore accroché waa ji daal di dugal direct droit am booba ji loxoom yenn ci la direct bi laal à la pointe du menton et au niveau du cou. ah d'accord. donc c'est un tout de suite. d'accord gis nga KO euh, ñii les médecins peut-être ngi dégg li Euh, le cerveau dafa am benn liquide bu ko bu ko wër. quand tu reçois un un coup violent le cerveau bouge à l'intérieur de ce liquide là et tu perds conscience. ok. et à force que muy bouger à chaque fois qu'il y a chaos il y a saignement. à l'intérieur. à l'intérieur d'accord. Euh, bu ñu bu ñu defee scanner bu ñu xoolee bopp bi am na fu beneen génn. D'accord. Alors, si les coups-là se répètent, on ne créer problème. Mm. Mohamed Ali, c'est ça qu'il a emporté. La maladie de Parkinson, il a reçu des coups, il a donné, il a reçu des coups. Mais à force de recevoir des coups à la tête, ça provoque D'accord. Donc, Mandal, sauf qu'elle ne mën <laughs> pour terminer, euh, de bonnes techniques. Hmm. Surtout. de percussion. Surtout. Que ça soit le coup de poing, le coup de coude. Chez les pratiquants de Muay Thai, mm -hmm. les coups de genou, coup de loxo ci làmb. coup de coude amul ci làmb. dóor fii amul ci làmb te loolu yëpp c'est permis en MMA. mix martial arts. ok art martial art martial yu bari ñu ñu mixé. d'accord donc buñ ko mënulee bañ a def mënuñ ko bañ a def par la grâce de Dieu. vraiment maa ngi leen di ñaan yéen suma mbokk bëri. ngeen góorgóorlu dem euh, jàng ji technique de percussion yooyu mm, avant ñu ciy dugg technique de coup de pied mm, Mariama euh, xoolal les pratiquants de judo mm-hmm. ils t'immobilisent le ñu damm ko war jiixee mm-hmm. la jambe boo jiixee boo moytuwul ñu damm ko mm-hmm. donc yooyu yëpp ci technique u MMA la bokk l'essentiel c'est de détruire son adversaire. D'accord. mais buñ jàngiwulee loolu